lii ak kuréel la goo xam ni ñu ngi tuddee ànd taxaw daara ngir yàlla ñu ñëwoon fii tey ci daara Serigne Khadim fay ngir am benn ndimbal boo xam ne dañ ko jëmee ci daara yi muy social boo xam ni lu jëm ci dund la ak i basang ak ay satala ñu ànd ci nag ak sëriñ Adama Diakhaté mi nga xam ne mooy yor wàllu mas moo wàllu investigation de daara nga xam ne daara yi ñu war a taxawu dañ leen ciy jàppale ci wàllu mbaar ak ay euh, wanag ak yu yu ñuy demee léegi nag ren moom dañuy ñëw ci koor gi ñu def social ànd fekk tamit suñu Moussa Ngine Jaxate mu yor wàllu communication ci an taxaw dara ak si Abdou Lahad suñu ak euh, suñ suñ Mun Njaay ànd fi tamit ak suñ Mamoor Sarr euh, di yëngu ci wàllu politique waaye tamit bokk ci kuréel ànd taxaw daara su ko defee tamit ñu fekk siñ suñ Xaadim Fay waaye lu baax képp koo xam ne da see nekk da ko war a feesal ba nit ñi jote fi ba mën tee def ndax lu baax dafa dafa yombul te yombut a def kon nag képp koo xam ne dang nga nekk da ko war a feesal ba ñëpp di def seenu ñaq ton tey moo taxoon ñu jóg jënd ab dundu si weeru koor yi nga xam ne dongay dañ ko soxla ñu dem si daar yi nga xam ne xool nañ leen ba ñu yeyoo ko ñu jox leen ko te an taxaw daara tamit doxu si ne affaire mbokk la wala dañu xool daar joo xam ne rek aaja na ndimbale ñu jàppale ko si li nga xam ne moom la gën a yittewoo bu ko defee mbokk yi daañu ko saytu ba mu aw si yoon ñu waxtaanee ko ba ñu xam ne kooku jar naa dimbali ñu dem kooku jëfal ko li nga xam ne moom lañ tollool loolu tax nag ñi fi woon ñëpp ndax bëgg ndax kuréel goo xam ne nii la ni ñu ko tudde rek yaakaar naa wuy jina turam muy ànd taxaw daara ngir yàlla rek moo tax tépp kuy jëfal yàlla nag kon xam nga ni nga ko war a jëfale kon loolu rek mooy doon li nga xam ne nii moo mooy li am solo lépp lu si waaye def nag dañ la koy defal fa nga bëgg a def rek ndax kuréel gu leer la gu doxu si ay caaxaan la xañ na ñi ko ñi ko séq biñ koy sos am na lu taxoon ñu sos ko waaye dem nañ ba si biir am lu leen si fekk ñu xam ne lii yaatal ko kon moo war kon yaatal googu ñu ko bëgg yaatal nag moom lañ tax ñu bëgg ko ñëpp jote si ba ñëpp mën a ñëw adhéré si kuréel gi képp koo xam ne bëgg nga si adhéré tamit ubbil nañ la suñu buntu nga ñëw bokk si kuréel gi ñu liggéeyal yàlla rek te yàlla tax waaye kuréel bii dañoo jóg jël yoonu ànd taxawu daara yoonoo leen jël pour mën a egg ci suñu borom buñ ne ànd taxaw daara nag ku ko wax sam xel dem ci daara te ku sam xel dem ci daara danga gis ay jafe-jafe ak i xat-xat ak yoo xam ne day gàllankoor daara ndax dañoo nekk ci réewu laïc bu ñu waxee laïc mooy loo xam ne mën ngaa taxaw ne damay defar daara waaye am nañu taxaw fee ne du fi amee xam ne lu waaye neex daal mooy loolu mooy dëkku laïc kon ñuy wax ne yoo duñ jël mu yoonu ànd taxawu daara ñu ngi ci woo ñëpp di ci yaatal ñëpp kuréel gi nag mi ngi am daanaka pratiquement at at daal la amagul ndax 2021 euh, la sosu maanaam jeexitalu 2020 le 25 décembre 2020 2020 kon amagul na at léegi ñu ngi koy ñu ngi woow ñëpp rek ñu ñëw ci liggéey bi jubluwuñ ci dara nag lu dul ni ko sëñ Soxna waxee léegi jëwriñ mooy lu baax képp ku koy def danga koy wane bëgguñoo weer benn sëñ daara wala benn kilifa diine waaye dañoo bëgg nit ñi ci boppam xam ne alxuraan jëf ci dafa baax dafa am solo ndax alxuraan yàlla moo ko sàmmal boppam moo wax ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la hafizun kon loolu kenn mënu ko yàq kon in tansurullah yansurukum rek moo ci am képp koo xam ne da ngaa taxawu suñ borom suñ borom taxawul la tax taxawul la environnement bi te environnement alxuraan dafa doon lu waral sella kon ñu ngi ci woo ñëpp mbooleem koy dégg suñu kàddu te gis kuréel bi nga nekk ci biir réew mi wala ci bitim réew ñu ngi lay tàllal loxo xam ne defal defaloo ko ànd taxawu daara defaloo ko kenn su bopp ko def nga koy defal ba muy waxee na ko ulaayka humul muminuuna xaqan max maxfiratun wa rizqun karimin dafa boole ñiy joxe seen alal te yàlla tax kon jikko yooyu bala nga kaa mën a am faaw nga jël sa dërëm di ko def ci yoonu yàlla ndax dërëm ak doom dañoo sax ci xol ku ko mën a joxe rek mooy ki gëm yàlla kon lii ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm di ñaan yàlla fu ngeen bëgg mu àgg fa yàlla na ko yàlla àggale foofa لهور دون سو تنحند سرسارا حمدي وسكري لمن كل به سارا لهور دون سو تنحند سرسارا ابن يوسف مبوك ييغا خامني ñooy waa ànd taxawu daara ngir yàlla yo xam ne tey jii bett nañ fii ci daara ji ci loo xam ne du sama yëg sax man indi fi ay xaddiya yoo xam ne lu takku la mu jóge ci mbootaay googu <coughs> te kenn umbulewul ne fi jamono toll lépp lu kenn di def mbooloo moo ko dàq te fi ne jullit yi naxas nañ naxas goo xam ne war nañoo taxawaat jaayuwaat bennoowaat te fonk li am euh, duma ma tudd tur waaye bu yàggu dara am na benn ecole boo xam ne bu siiw la fii ci fii ci réew mi nga xam ne a benn bànqaasam mu ne fii te ay bànqaasam mu mu am ay bànqaas bànqaas ci réew yi nga xam ne dañu làkk nasaraan ñu jekkoo jekk rek dogal benn ndogal bu yees te loolee ñu dogaloon xam ne <clears throat> ñii ko leen songu mën ngaa jàll moo tax ñu songu woon moo tax ñu songoon ñu foofu ak yu baree bari yoo xam na si néew nañ ci doole néew doole goo xam ne si du suñu ñàkk a bari du suñu ñàkk am waaye dañoo jàpp ne ki ki ki yor daara ji di jàngale moom moom daara ji te demul noonu ndax bu demoon noonu gouvernement bi ñoori école mu bàyyee leen seen i école ndax école yooyu ñoo ko moom waaye taxul ñu bàyyee leen ko ko corona bii weesu mboolem fu euh, établissement nekk ci euh, Sénégal jox na gouvernement bi jox na leen ay ndimbal ñoom ñëpp moom mboolem euh, établissement yëpp yi nga xam si ne jàngale fii jamono boobu nag sëñ daara yu baree baree bari lottoon nañ ci lot boo xam ne ñaari lot la benn bi béywuñu leen jàngale ñaareel bi ab dund defoon nañ leen te joxuñu leen ko te it booba jullit yi béywuñ ca xel bu baax a baax jóg taxaw ne suñu mbokk yi buñ leen di tamit tamit nañ leen bay moo tax ñu bëgg mboolem koo xam ne si ne yaa ngi seetaan vidéo bii nga jàpp ci kuréel bii di da ànd taxawu daara ngir yàlla. لهور دون سو تنحين دا سرسارا حمدي لين جاجفال ci seen liggéey démb njëkk tey ndax itam mm, ànd taxaw daara ngir yàlla di kuréel goo xam ne yàlla yi kese rek moo ko tax a jóg ndax bu ne yàlla yi kese moom dara jiitu ci eh, daara ji mooy dongob daara bi wala sëñ daara wala jëmmi barab bi ci boppam te lu ci ne yéen a ngi ci joxe seen i xalaat di joxe seen temps di joxe seen i weccat loolu lépp nag yàlla na ko suñu gërëm ndax eh, am na lu fi nekk loo xam ne si njëlbeenu daara ji. daanaka kenn jiitu leen ci digg daara ji kenn jiitu leen ci kon lii daa dikk ngir mottali waaye njëkkul tey te loolu eh, jëmmi suñu borom ji rek moo tax xëy na dafa fekk mbir boo ko jiitee seq ak say nawle lii sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma radiyallahu anhu doon wax ne mbooloo da ngeen laaj lu man te di ko defal digal fu ñu xam xëy na mooy tax léegi léeg-léeg yenn leeral yi di ko jar. waa am na ci ñooñ ci biir mbooloo mi ñoo xam ne fu xas dugal seen dorom seen yoon nekkatu ca. boo ko doon lekk wala nga koy tàll it seen i nekkutu ca am na ñooñ bu ñu xasee dugal fañ bu ñu xasee gis fañ ko dugal seen xol daal di sedd am na ñooñ nag moom daanaka faw ngay leeral ak leeralaat di leeral lu bare bare daanaka ñuy door a xaw a nangu tuuti loolu mbooloo moo demee noonu waaye lu ñu ci maa doon njiit moom yombul te du ma sa yomb kon nag yéen ñi ko xam ne yéen la yàlla nattoo ngeen jiite ko yàlla na suñu borom kattanal leen tey ñu leen dénk euh, kàddu kàddu goo ne mooy muñ ndax euh, jiite mbooloo moom rawatina suñu réew mi di Sénégal lu njiita lu fi mett la loolu yaakaar naa xam ngeen ko waaye nag li soon borom digge ci euh, def lu baax rawatina jëme ko ci diine yàlla bu leen dara umpo li nga xam ne mooy ab dund ngeen euh, def ko ci euh, jëmmi doomu aadama te Sëriñ Tuubaa nee woon benn tibu ñam nga jox ko ko xiif moo gën tabax junni jumaa kon yaakaar naa ne bu fekkee ne nag def nga lu ëpp loo xam si ne waxam la benn bu ñëw waaye am mbooloo mbooloo mën nañ caa euh, euh, mën nañ caa xéwlu loolee aw yoom yàlla rek moo ko xam bokk na ci ñi nga xam ne bu ëllëgee suñ borom subhaanahu wa taala mën na leena a mbugal euh, bokk na ca la leen dugal ca loola mooy ñàkk joxe aw ñam maa salakakum fii saqar qaalu lam naku min al musallin walam naku nut'imul miskin kon nag jëf ji rëy na ci noonu lool hamdi wa sukri liman kulli bihi sarab lahoridan doon soo tin hinda sar lii ngeen di taxaw de mooy bëgg-bëggab sëriñ tubaa ndax wax nañu ne euh, bu ma saa wax ne sama ñooñ de ñooñ alxuraan a tax muy wax euh, mës naa am benn jëmmi jëm sëñ Abdou Samad mii ma yëkkati addiya di ko ko jox mu ne ma sëñ jaax ma ne ko mbakki mu ne ma bu bul ti dara di ma ko jox lu ma waaye yoxati na ma ko jàngal alxuraan ak xasaayit ndax addiyee sëriñ daara daal man duma ko duma ko jël. Euh, loolu nag euh, dafa roy sëriñ Touba maamam ci ñooñ alxuraan ba tax na kon ñoo ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla yokk leen fa ngeen bëggee gi ngeen yegg fa. yàlla ngeen yokk ci saayir ak ci baatin te leen wóor ne yéen a ngi liggéeyal sëriñ Touba liggéey bu wér a wér a wér ndax alxuraan day moo waaw ba tax na ku ku yëkkati sa wërsëg dara jox ko waa alxuraan def def nga liggéeyub sëñ tubaa direct boo xam ne dara du ko mooy. wax dëgg yàlla yéen ñi nga xam ne yéen a fi ñëw tey te ñëwee fi nii ngeen fi ñëwee eh, amuñu lu sant leen gërëm leen ñaanal leen ndax lii ngeen di dox nag képp koo xamante ne xam nga bëgg-bëgg sëriñ Tuubaa ci dëkk bii maanaam lii moo ci ëpp di farat eh, di ànd di dimbale. daara yi ndax daara yi kat ñu mat dimbali dimbale ndax dañuy liggéeyal sëriñ bi ci kaw ndigalul yàlla li ñuy liggéey nag askan wi yëpp ñoo koy jariñoo ndax dana dem ba egg foo xamante ne ñoom ñu koy jàng sax duñu xam euh, maanaam foofa fa mu jëm mm-hmm. waaye sëriñ bi nga xamante ne moom bi muy sanc dëkk bi loolu lépp euh, fàgg woon na ko kon ñu xam ne rek ci ndigal la ñuy wéy waaye yéen ñi nga xam ne nag yéen a am xalaat pour taxawu leen nii ngeen taxawee yéen moom ànd ngeen jëfee ndigalu sëriñ bi ak mboolem xalifa sëriñ Touba bu fi jaar. allahumma salli ala sayyidina muhammadin allahumma bi haqqi wajhillahi allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunajjina biha min jamii lahwaali wal afaati wa taqdi lanaa bihaa jamii alxaajaati wa tutahhirunaa bihaa min jamii sayyiaati wa tarfaunaa bihaa indaka ahla darajaati wa tuballighunaa bihaa aqsal xaayaati min jamii alxayraati fil hayaati wa ba'dal mamaati barki borom Tuuba doona sootin hinda sarsara hamdi wa sukri liman kulli